ànd nañu ànd bu rafet ñu ak ñoom ñu accompagner ko si carrière ndax ñun ba ñuy doog di dugg si bëre ñun ay boy town lañ Gueule Tapée lañ judd suñu bëggee làmb dëgg dëgg dëgg dëgg yàlla moom moo tax ñu bëgg làmb ndax ñun bañ koy dem bañ siy dem affaire amateur rek lañ si demee woon comme booy ñu ko jëlee nii ñu jëlee wuñ ko woon noonu au sérieux mais ñoom ñun suñu bëggee làmb ñoom ñoo ñu bëggaloo làmb affaire yooyu quoi làmb dafa day waar quoi ndax gars yi ñoom mën nga leen accompagner si làmb nii muy neex mais bu carrière bi jeexee rek jeex na quoi avant carrière bi di jeex sax bunt yëpp dañ leen koy dañ leen koy tëjal quoi te ñooñu seen combat amul luñ ci dajul seen combat amul luñ ci ñoom yiki néeg yooyu yëpp dañ leen accompagner seen ay combat ba mu jeex seen carrière yëpp dañ leen ko accompagner ba mu jeex bëgguma woon sax di du di tudd seen ay tour sax si ay média nii affaire yooyu quoi wax dëgg yàlla ndax ñun ay doomu Gueule Tapée lañ ay bañkat lañ dañ ko accompagner si ay combat yu bëri yow sax li nga nekk ab si télé sax sut di wax ni euh, di kii sax moo tax lu bari doo ko mën a kii mais yow suñu combat moo Balla Gaye 2 radi kii Radisson bi fii nii coow li lu ko déclenché man mii si la bokk man ak Sa Thiès suñu bakkoon mënoon fa xaj ñu jaayante fa mais da leen di accompagner làmb mais bu jeexee jeex na quoi xam nga rek dañ ko bañ a gàttal sax ñu yemale ko si lu ndaw lii rek mais xam naa dinañ ko gën a yaatalaat affaire yooyu quoi ndax boo waxee si nit rek da ngay tooñ affaire yooyu quoi mais man ku ma xam-xam-xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg xama ma Yékini bu baax man mii maa daan partenaire am box ikiri ndakaaru combat bu mu daan takk gan man mii la ko daan takkal beneen mbër boo génn nga laaj ko ku mës bokk ikiri ndakaaru nga laaj ko Yaxya Jóob Chris Cross man la daan takkal gant duma wax quoi da ngay gis benn mbër rek boo xam wala nga laaj suñu entraîneur yi kenn rek ñu yor écurie Ndakaaru nga laaj ko Yaxya ak Chris Cross entrement boxe rek nga koy wax ndax bëre mënuñu woon bokk dimension bëre quoi ndax ñoom ñoo ñu ëppoon doole. kombaam yëpp ba si ancien combat yëpp amul benn combat booy seetaan tele toog gis man ma nekk si ginnaaw yi ki ni ndax ñun ay waala waala lañ ñu war. moo tax confiance boobu ñu amoon ko si moom ñu lu ñu war doomu aadama dañ ko accompagner combat am lépp mu rafet Yaxya carrière u làmbam benn combat la mësta ànd ak moom muy Lac de Guiers 2 combat mook Lac de Guiers 2 boo combat boobu rek laa àndalul si carrière làmbam mais carrière lépp début ba fin bëre dóor waxuma simple nag quoi na simple xam nga ñoom ñoo ñu mag ñooñu jiitu si ay làmb mais bëre amul benn carrière euh, làmbam amul benn combat bu ma absenté benn com combat bu ma absenté benn combat laa absenté te boobu moo ma njëkk a jox sama première défaite arène te bugguma ko woon musuma sax wax ndax xamare dañ naan mbër bu mag ku bëre si bésam da ngay daanu boobu moo doon sama première défaite boobu tegle naa lu mat cinq victoire ñu bëgg ma bëre loo si combat moo Bombardier man ak Yaaram Guèye buy nekk euh, entreneur ñoom Modou Lo ñu boole ñu man ak moom spécial boobu ñoom Yaaram ñoo ma mag mais boobu maa ngi tegle série de mbër bu mag ñu ne kenn du bëre si moom ñu bëre loo ma jour boobu laa absenté te jour boobu ñoo ma nag moom ñoo bokk bés jour boobu laa bëre si laa daanu boobu moo doon sama première défaite moo ma indil après jafe-jafe làmb après mu mujj découragé teg la défaite yi teg la défaite yi si laa après sax bëreetuma dama leen doon accompagner te dama nekkuloon sama ay mag yu baax yoo xamante ne ñoo ma dugaloon si bëre muy Big Boss Pape Omar Diouf ak Mbodj Diarra sama ay grand frère ñooñu ñoo ma accompagner woon Big Boss teel dem tukki dem Italie xam nga rek te ñooñu ñoo taxoon ma dugg si làmb mais ba ñu demee ginnaaw gi wéet xam nga nga nekk xale affaire boy town mosu ñuy dem uti sëriñ di dugg si village yi si àll yeeg yooyu noonu Dakar lañ yem ñun suñu làmb Dakar lañ ko yemale woon moo tax affaire yi xam nga rek après dafa mujj metti du ñu xam fu ñuy taxaw yàlla yàlla sama jarbaat génn ma teg ko loxo muy anti ñëpp xam nañ ko Fass boo xoolee moo aada Fass ñu bokk génération affaire yooyu ma teg wéeru si ginnaaw booy bi di ko teg loxo affaire yooyu ak booy Siteu bu anti ñaari booy yooyu sama ay booy la ñooñ laa laa nekk après di leen accompagner de gis nga leen si làmba Siteu boo xoolee benn défaite la am anti benn défaite la am ku si nekk tege nga lu mat ay 10 victoire 7 victoire 9 victoire affaire yooyu ko ku si nekk am nga loolu seen defer raar na ndax li nekk seen ginnaaw moo tax quoi non mbër yi amuñu kóllëre si côté boobu quoi mën ngay ànd ak ñoom nii xam nga da ngay gis que ni champion yi nekk si kaw nii sax loolay seen problème loolu mooy seen problème amuñu ay nitu démb quoi mbër yëpp la nag mbëru démb nitu démb xaritu démb amuñu ko xarit buy neex lañu am xarit buy neex rek la ñu am mais xaritu démb ngay doxanteeg ñoom yax ya man ak moom suñu am problème bu ñu rombee dañuy nuyante nii di nuyante moo ñu mag nag quoi mais dafa rafet man dama dem këram di ko seeti ñëw bu fëgg fëgg këram gardien bi na da nga da nga am rendez-vous moom ma ne ko rendez-vous man ko non ma ne demal nga wax ko ne ko Chris Cross la mu ne dum ko ko wax tant que amoo rendez-vous ma woo ko ma am lu mu si dégg waaw du waxu média ma am lu mu si dégg looloo tax ma dagg sama diggante man ak moom ma dagg sama diggante moom te loolu dafa am ay témoins yu ko témoin sama ay copains keuse yu témoin loolu ma ne kii su fekkee man dama ko woo rek woowaat téléphone man santu ma jaañ looloo tax ma dagg sama digganteek moom mais ñu ma xam dëgg xam ak Yaxya am ay jaar-jaar man ak moom pare na fee Moustapha Gueye man ma dëkk biir Fass fii man Gueule Tapée laa juddoo yaroo mu dëkk dëkk biir Fass muy bëreeg Moustapha Gueye 2 yu nekk ñu ko si Moustapha Gueye lu nekk ñu ko siy dégg gan man lañ jox xaalis man maa daan dem di préparer ak moom di takk ak moom gan di rayante moom combat boobu booy ñoom Yékini junior ñu ni ngi nii ñëw Malick Niang boobu xalaatuñu ñooñu takk gant moom Yékini junior booy ku takk benn round taw douze round man ak moom ñoo koy takk di xeex douze round Mbaye Cissé mi ngi dund Kati Diop mi ngi dund Mbaye Diagne mi ngi dund ñoo ñëpp kuñ ci laaj ñu wax la douze round man ak moom ñu koy def mais tey ñu bu jeexee jeex na ñun yaakaaruñu lii si doomu aadama yaakaaruñu lii si doomu aadama mais garaawul baa ñuy yamale ko fii ndax xama rek dënn fi day gën a tàng ko wax dëgg yàlla DK TV mooy Dakar TV people. man Niakhar Agnew aka Faramaren music maa ngi seetaan DK TV. voilà man la Mame Fatou Ndoye maa ngi seetaan DK TV. Maabo. Maabo jaajëf waay DK TV. kon man El Hadj Bekay Mbaye maa ngi seetaan DK TV. man Malick Thiandoum maa ngi seetaan DK TV. oui euh, man Moustapha Guèye maa ngi seetaan DK TV. man Viviane maa ngi seetaan. DKTV. yes sir yes sir Wally Ballago Seck mi connecté wu ci DKTV people ah. waaw man El Hadj Bilal Koutia damay seetaan DKTV. pour yu am solo. ngaa blende maa ngi seetaan DKTV. di dundu gis DKTV. Malomzo Dal maa ngi seetaan DKTV. pré lañ ma liggéey la ma liggéey DKTV way dina ko seetaan waay voilà. yàlla na ngeen nekk ca connecté wu leen